beaucoup Sénégal particulièrement beaucoup Thiès euh, di le remercier ci invitation bi d'abord situation dans le parti Réuni, je pense que qui peut responsable du parti mais aussi day ce qui s'est passé réellement pour nous ñi du ni ki rek parti malaise parce que nul n'est indispensable c'est vrai que nak amul ben départ bu dul regretter ndax ñun politique li ñuy def addition lañ wax mais pas soustraction donc bu ben nit génnee sax duñu né waxuma lak ay nit mais nak ban façon génn lañ génn lool moy wax moy que ñun suñu parti ay nit yo xamni pratiquement parti bi defal na leen lu nek parce que je parle euh, sur le cas de Tchernobyl comme qui est un frère que j'ai beaucoup

ci cabinet am muy liggéey ndoog moom mu jëlat ko aussi invité ko pour mu rejoindre son parti mu jël communication au parti bi jox ko ñu dem congrès ñu jox mandat Idrissa Seck pour mu tann les membres du secrétariat mu jël koy jox ko ndaw ñi mu am une mission bu mu warona def defuko mais comme mom mu ngi don jaay image yu parti bi nit ñi da apprécier ñun ñu ngi don jema def lu mën pour jema au moins assurer li nga xamné moy suñu rôle en tant que jeunesse diko jouer ci suñu localité selon si suñuy volonté mais ci bir lolu mom su ko yàlla dimbalee président Idriss Seck identifié ko ba jox ko responsabilité bam yor ci tey ji mandat député ba yalla def tey ji Sénégal yépp gis ko ci talam ak li mu mën dara waru wona a fess a bëtam ba adna dem ba ag ci fo xam tey ji mu ñak poste député wala ñu ñàkk ko investir mu wara tax mom mu quitter le parti Rewmi de cette façon. Mhm. parce que mel ni coow li ko gérer de façon très qui parce que bu ñu xoolee ci biir investir yi affaire bi takkoon na suuf ñu bëri di wax madame ñak investir Hélène Tine position ba ko yobbu ak yene position yi ba taxone lolu nek ay coow est-ce que gis japp ngeen ni ñak ko investir mu nek député fofu ci assemblée nationale mo waral dem bi wala dafa am leneen lu si laxasu. wa mais mom lolu joué na ci lu am solo parce que depuis boobaa ak léegi dañuy wax ni dafa am lo xamni dafa am ñu door ñimé ñemee ñu daan bëgg dem di négocier ak ñom dañoo dem gis ni Thierno Bocoum mi dafa mer utiliser moment bo pour waxtaan ak mom mu séddee. ñoom négocier négocier. mais proposer poste de responsabilité. Mhm. comme ils l'ont fait ak ñeneen ak ñeneen. ci ñan ñan ñan ñoko proposer. non mais le camp du pouvoir. mais xam nga day yomb trop Thierno Bocoum baye rew mi la dem ni rejoindre la APR. parce que day da koy décrédibiliser il faut mu xol ban pexale meuna jaar lolou bu mbett kenn mais tay ji dama lay wax ne la ñoñu bëggoon fëggoon buntam. donc fay da fay da fay jël lepp eh, ne tek tekkaaral rek daal di xolat li nga xamné ne moy avenirum ci politique. quoi non mom tekaral moko jik parce que bu waxé nit ñaangi fi amul xam nga limi mom ya, mo doon jaay image Idrissa Seck yaakar na ne tay ji bu doon fa génn wax ni président Idrissa Seck moma def li wala la mën nañu xam ni carrément président Idrissa moo ko def lu ko naqari ndax yaakaar naa ni ki nga xam ne moo la jël wommat la dugal la ci dara nga nekk ci moom mun la yaama ci doy kaay ma fi nit ñi mbokkal bokkal li muy def ànd ci ak moom ñu ànd ci ñu ànd tey jii ba yàlla def tey ji nga am ci teraanga ba ñëpp xam la boo demee ba koy bàyyi moom moo la war a mën a def lu tax nga bàyyi mais keneen waru laa du keneen parce que moom waxul benn yoon Idriss Seck moo ko def lu ko naqari moom moo jël ci coobaree boppam bàyyil boppam. mais ñenn ñi dañ naan euh, bu ñuy dindi turam ci liste fekkee na ko. ay dindi turam yooyu yooyu yooyu. yooyu xam nga Thierno waxula ko. Mm-hmm. moi j'étais investi. tey parti lañu yor parti bi ku ci ne da ngay ñëw la nga am nga indi ko boole ko ci Thierno bañ koy def député boobu amul ñetti nit yu topp ci ginnaawam. te taxul kenn dégguñu. maanaam amuloon légitimité pour. non ëppul amuloon benn légitimité bu ko mayoon mais lenn moo fi nekkoon moom ñun parti la ñuy dem coalition ak Benno Bokk Yaakaar président Idriss Seck ñëw demande ñu toog ñu waxtaan ñu boole ko ci liste député yi. mu nekk député pendant 5 ans te yaakaar naa ni yaatal nañ ko rafetal nañ suñu ànd ak moom kon tey jii ñun ñii nga xam ne tey jii dañu investiroon Thierno ëpp ñu woon légitimité ci bañ koy def député à l'époque parce que ñun dañoo xàmmee rek di ànd ak président Idriss Seck ba suñu jon yàlla tey te li ñuy contribuer ci parti bi moom contribué ko ci parti ci wàllu vote xëy na moom ci communication foofu la ko yàlla maye mais moom lañ jëloon di ko wane ci télé beeg rajo yi muy wax mais ñun ñoo ko doon yabal. mais est-ce que tamit parce que xoolee Thierno Bocoum intervention am naan gis pertinence bi mu doon am parce que daan li muy wax. waaw mais xam nga loolu li ko waral mooy c'est parce que dafa bokk dafa nekk jeune.

ba top seen ginaaw ñëk nañu ëf ñu yew xol suñu bëtt wax leen dëgg ñu dégg manam mom cërno bokku way ñun ñu man mais on l'a tenté jaar nañ ko ci man jëm nañ ñoo nañ wax ma lo xamni tay ji bu mako waxon sa loxo dem sa gémi mais biñ ma waxé pa dama leen bu leen sonal seen bop affaire ci je le non kama wo ndakaru la né <laughs> affaire la bok waxna na mu turam bam waxé ba paré dama ko ni je le je le je le réwi dans le sang et le président Idriss Seck dans le cœur lolou dara du ko dindi te man gor la lima and ak Idrissa Seck senegal moko waral limi def discours bi mu yor ak dem dem bi mu toog ak position bi mu toogee ci senegal lolou mo convainc ma topp ci ginnam du ay privilège alal teranga du ay alal nit da ngay mel ben jiko bo xam ku la xam dem xam la tay ci lolou la lay fek ci la lay euleuk bo toge ci kanam nit ñi meuna jakarlo ñom mais tay euh, parti bi ñu ci nek di ay kangam ci parti réew mi yaakaar leen am ñeneen ñu bété fu comme ni Thierno def. xolal man fi ne ni parti réew mi ku dem baax na man duma dem man leer na man sama bopp la xam man. bu ñepp doon dem mu fi de man man mën naa mën naa fi mais est-ce que loolu du xademal ambition président Idrissa Seck pour ëllëg jiite Sénégal. déedéet parce que Idrissa Seck li koy fal ci sénégalais yi lay nek parti mom dafa am groupe bu koy ngank rek mais li ëpp ciy voté bokkuñu ci parti politique président Abdoulaye Wade bi koy fal en 2000 découragé won na ba dem tok dañ koo dem jëli lii fal président Idrissa Seck loolu jéggi na xalaatu doomu aadama mu ngi suñ kanam incha allahu rabbi. Thierno Bocoum la demam métti na leen lool parce que yéen a koy métti lu euh, tey ban di lancé euh, ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk ci parti réew mi ak seen i coalition dañu fare ci opposition bi. man daal li may wax mooy valeur yi nga xam suñu kilifa yu baax moom la ñu bàyyeel wéet gore ko gore gis nga këla ji teraanga ji la ngor jangal adna, wan la ci lu ci adna lo xam sa kilifa sa wayjur bi la jur sa wonu loko defalu loko koku loy xalat ëlëk war nga mëna def lepp bam def dul diko wor wor nak dañu wax ni ci wolof ni kep ku ko def mu jigla dañ la ko deug